Touba Khayra. seen menuiserie tapisserie Touba Khayra seen jaaxle jeex na jëm ci wàllub jënd ak jaay ay meubles. ay salon ay chambre à coucher ay fauteuil ay coussin pour auto yanji ba yegg ci lool sax yamu na ca soo bëggee yee salaat wala defar sa salon dawal gaaw seeti menuiserie tapisserie Touba Khayra. Touba Khayra. am na itam Touba Xayra tissu xeetu tissu yépp la ñuy jaay ay brodé bazin voile wax filafil jesner bazin brodé yéen ñi bëgg a sañse fël-fëlaale ba fu ngeen romb ñépp geexsu leen daw leen gaaw seeti ñu mën ngeen ñoo fekk Kër Massar wala tournoi Serigne Assane ca Géejawaay mën ngeen ñoo woo itam ci 77 713 94 57 77 713 94 57 wala 76 4 490 72 12 76 490 72 12. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkurwaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xamte te ni moom moo di actualité ci làmb dina leen ko toppal yaakaar naa ne mbokk yi démb makat mbeng moo ñëwoo woo fële ci arène national nee leen def ay combat yoo xam te ni combat yu dey waar la combat yoo xam te ni kenn dul ko naatable bari ay xale yoo xam ni démb feeñaat nañu ci làmb bu ñu ko waxee fi may njëkkee mooy combat bi nga xam ne moom moo fa andi woon amateur yëpp muy combat jeunesse ci diggante yéen bu diis ak ki nga xam ne moom moo di presse waaye maka ñemut foofu ku ne xam ne tamit kalaaf bi poule A ngi fi ak poule B mu jël ki nga xam ne moom moo di gàmmu gay boole kook caatu yaraax waaye yemul foofu mu jël njaay tin boole kook caatu yoof waaye yemul foofu ay combat yoo xam te ni combat yu bari la garga 2 tamit laale na fa ki nga xam ne moom moo di booy jaxaaw bu cees mu nekk ay combat yoo xam te ni combat yu doy war la waaye tamit ñaa bu ndaw ak Zarko laale nañu fa mu nekkoon combat boo xam te ni combat bu bari woon coow lool muy combat jeunesse ndax Zarko moom moo wàcc may ki nga xam ne moom moo di ñaa bu ndaw sens yàlla nag mi dara tawut nga xam ne moom mooy jël ndam di ko maye seet ku ko neex mu jox ko ko démb Zarko la ko jox mu nekkoon nag combat boo xam ni combat bu extraordinaire la woon ci ñaa bu ndaw buntu la woon ci sarko tamit gis ngeen ko moom Zarko daal xaw ma fan la jëm ak xale yi loolu naa ko wax fan la jëm ak booy ñu daje nag kenn koo xam te ni dafay sonn ci ñaabu ndaw ndax boo xoolee ñaabu ndaw léppam seex ngay gis mu nekk ci wetam moo yor ci wàllu cummikaay bi moo yor ci communication bi buy dem ci yenn signature yi fu muy dem moom moom lay àndal ñu war a waxtaanee ak moom démb ci waajtaay bi fan la ñu tolloon ci bis bi seex maa ngi lay nuyu di la ziar. waa Maguette maa lay fay bu baax a baax di sant waa Guédiawaye nag bu baax a baax baax avant tout ndax ñaa xale la quoi ndaw la ñaa làmbu maanaam yàlla suñu borom day day def ko neex nit. ñaar daa am lu ko yàlla defal si làmb quoi ndax su dee dëgg rek la yàlla bëgg am na ñoom ne ñoo jiitu fuuf ñaa si làmb mais day bu ko yàlla defal ak dimension bu mu àgg si làmb am na ñoom ne ñoo ko jiitu si làmb amuñu ko quoi suñu borom moo xool la ko neex mu def nag dem nag làmb la quoi mënu weesu làmb dañu doon wuti yàlla suñu borom dañu may demb yàlla moo ñëw ak ay mbiram ñu nangu ko nag ñun ay Baay Faal lañ dañuy nangu dogal lu am rek nañ ko bëggoon nañu tey bu ñu sañoon dañuy indil waa Géejawaay victoire ndax luñ soxla woon la te tamit làmb jooju am na fu mënoon a yóbbu ñaa fu sore si làmb mënoon a ubbi ay bunt yu bëri mais nag ñaa ndaw la quoi te ndaw yoonam du gaaw te lim am sax rëy na ko quoi taw feex la lii taw feex la dañuy sant yàlla ñun bu baax rek sant waa Géejawaay préparation combat bi xam naa ne dugg ngeen fu ne coow li bari woon préparation combat bi ngeen zar jël zar koo coow li bëri waaw loolu day am làmb juñ jël day am coow ñaa moo toll foofu quoi affaire bi waaw Zarko si la mais ñaa tamit daa am dayo boobu quoi mhm. yàlla la kaa defaloon Zarko am na dayo mais ñaa moom làmb ju mu dugg day am coow moom làmb ju mu dugg promoteur bi boo boo seetloo làmb ji la ñaa dugg ñu def promotion bu bëri mhm. ne làmb làmb ju amoon ñaa mooy def promotion moom ay entraînement am rek promotion la mhm. ndax moom dafa am ay compte yoo xam ne ni tey jii man sama compte rek dafa am doole seex bu ñaa bu ndaw boo ko bindee si TikTok bi di nga ko gis ak yeneen i compte compte compte kon ñaa macha allah daal préparé na ko nu mu war a préparé ànd ak ay mbokkam. Mhm. fameem mhm. ak géejawaay yëpp topp si am ñu ko war a jàppale jàppale ko moom mu def tamit li ma def. Mhm. xam nga moo doon metti si làmb ji. ñaa ñëw indi yaafuus. maanaam ñëw wanewul ngor wanewul jom wanewul jàmbaar te làmb loolu moo ci am. ngor ak jàmbaar. te wane na lépp. ñëw na dóoruñu ko muy daw génne saako yi amul avertissement. am na làmb yoon day bëree fii am ay avertissement mu jeexee ko wala mu demee ne nan mais demeewul noonu. da doon njëkkante laa mu laa mu njëkkante la woon ñoom ñaar ñëpp song bi song bi ñoom ñaar ñëpp dañ koo njëkkante mais Zarko fa mu ko àgg dafa sori mhm. da dafa dugal loxoom fii mhm. daanaka ñaar moo daan boppam mhm. ndax ni mu ñëwee la voilà waa waa xam nga rek boo waree daanu maanaam ni mu jógee noonu pour mu daanu day yomb daanaka ñaar moo daan boppam ko daanu ko si doole de technique la ko daane waaw mais ñaa na nag mbër la quoi am na lu la bett waa métti na ma quoi nag foogoon nga ko foog ma woon loolu ndax ñaamu ndaw gëmoon naa ne ak lu mën a moom gëm-gëmam soo waxee dana damay daan moom dafa dafa nekk nit koo xam ne nii dafa am détermination quoi homme de défi la te dafa dafa nekk jàmbaar quoi wallaahi lazim da ngay wax a ne la seex kii su ma dama koy daan la lay wax moom loolu lay loo mm-hmm. maanaam xam nga moom dafa neex a yóbbu si laam am na mbër yoo xam da leen di yóbbu di xaw am dut yow ngay tiit man làmb ji ba mu taxee ba tey mosuma tiit mhm. du ma toog moom sax di waxtaan moom du toog yow di wax waxu làmb ji mhm. maanaam leneen lay wax si yow di la reetaanloo mhm. di la soulager wu quoi ñun am nañ lu ñu metti moom moom moom moom moo gën a am lu ko metti ndax moom mbetteel na de yow foogoon nga ne Zarko dina daane ñaabu ndaw noonu non foogu woon loolu wallaahi moom ñaami daanu sax am na lu ko bett quoi ndax yaakaarul loolu xaarul loolu. xanaa yéen xamuloo noonu Zarko ci tànk ñaar ndaw la jëm. non loolu loolu soo doon. préparé woo leen ko ci entraînement non préparé na lépp ndax làmb moom buy koy dem. préparé na ñaa soo juumul doo daanu. daa juum. pourtant li mu mayee contourne moo gën a rëy lii. daanu wu kon dafa war a daanu rek. yow yàlla suñu borom moo ko tuddee woon noonu yow ñu bari ne ñu bari ne ñaa bu ndaw est-ce que dëggaleen nga ko loolu mu bëri ñu neen daa war na xeex ak Zarko jixaat baqa tey di génn deret ji di toq neen loolu lañ bëggoon jixaat waa xam nga làmb moom ku nekk sa wax ku nekk li ngay gisee quoi xam nga làmb daa bëri ay coach ak bëri ay coach te am na ñoom ne xamuñu làmb maîtriser wuñu làmb làmb daa neex tey rek ñu dugg si magal bëgg làmb ba nekk xale ba tey eh, ñu nekk yow waaw ba ñuy nekk xale ba tey ñun dañuy fooy lam ñaa ma ñaa nekkul màgg bëre si ñëw ay téere mbër la commencé ba fawee bëri di ko fawee ba nekk mbër mhm. kon kooku xam na làmb bu baax mhm. mais làmb da ngay gis koo xam ne nu ko neex xam boo daanoo mhm. loo def du baax nit day daan sax def heure duñ ko gis la mu la def bébé julle dafa ko comme xale bursin ñan la bëreel ay général Morgan bursin da leen a tenir ak yeneen ay mbër yoon jarul may tudd seen tur garaawul xeex ak ñoom duma leen ñaaw mu doo da koo tereexee taf euh, gis nga man damaa bëgg ku mel ne Père Birahim Ndiaye si làmb ak Papa Sow ñooñu ku nekk képp ku nekk mbër war nga di déglu genre mbër mbër yoo xam ne nii gars yoo xam dañuy analyser sans far wala sans am lu ñuy bàyyi xel si nit loolu dafa baax Papa Sow daa wax lu lu am solo si làmb ji wax na làmb ji avant wax na làmb ji avant Papa Sow dinañ jàngat ci moom lu bëree bëree bëri bëri champion la daa a mere de lan non mere wu ma si kenn de seen xalaat la ñuy wax lu ma leen di meree ñu am seen xalaat di wax man comme li may amee sama xalaat seen opinion la ñuy wax mhm. mais tamit nit bul wax loo xam ne xamoo ko mhm. gis nga ñaamu ndaw combat li mu si daj ci entraînement wàllu entraînement laa la de waxuma la ay mystique yi nii yooyu ay deuxième la rek mhm. ndax mbër mi sax jiitalul loolu gëmul loolu entraînement la gën a gëm ñaamu jël xaalisam ak moyenam def ko si boppam kon kooku moo ñu gën a bëgg ndam. Mhm. mais nit nan lay daanoo nga ay wax yéen wayam ne naan ñaamandoo kontagul ku mel ne euh, kii maa ngi koy maa ngi koy jégalu sax man ndax man lii du sama sama paar làmbaloog gis nga doomu aadama buñ ne la yaa mun a wax rek ngay wax gënul xam nit ñi làmb ñun ay xale lañ mais xam nañ làmb. dañoo mhm. dañoo nekk ci keppaaru ay ñoom dañuy dund làmb mhm. ay waaju maaju ñoo gën a xam làmbaloog fuuf làmb. mais làmb xam ma déglu ma ma képp eh la. waaw déglu ma si léegi la ki pratiqué ak ki tëwëri bokkul yow da ngay tëwëri man damay tëwëri nii. maaju maaju dafa pratiqué. Alioune Seye dafa pratiqué. ñooñu da leen a mën a gën a xam làmb. ñooñu ñoo la gën a xam làmb fukki yoon. wuroon mhm. mi entraîneur moo leen gën a xam làmb fukki yoon gis nga doomu aadama yor micro yi am na ñuy yor micro yi di wase làmb ñu nekk seen si ginnaaw ñoo leen gën a xam làmb fuuf loolu mën naa nekk Père Birahim Ndiaye kenn gënu koo xam làmb mhm. te day analyse ma normal sans far mhm. wala saa gis ay gis ak nit si wet mu lay am lu mu lay buuxal loolu dafa bëri si làmb mhm. làmb dafa bëri loolu ay noon ci suuf ay noon de ñoo xamante ne dañuy wax loo xam ne ngir nit jox leen moyen loolu dafa bëri si làmb nañ ba loolu wax ngir koppar war ngir koppar dafa bëri nañ ko bàyyi yor sa mais mais làmbaloog avant muy wax sax ne ñaabu ndaw contact man bari na ci ñu bare baree bari avant làmb ji laa dégg ñu ne ñaabu ndaw dafa manqué ñu ko contacté am na wala loolu amul loolu amul ñaabu ndaw contact naag ñi mu war a contact muy wax contact na sa mu contact si combat bi ba muy bëri bursin sax contact ko contact naag waa écurie Walo yëpp ñu jàppale ko am ay partenaires yoo xam ne nii jotuma leen di tudd contact nañoo ak moom loolu yombul li mu am yombul. ñaax non bi waaw gars yi am na. waalo contact na fi ñu fi ñëw seetaan entraînement waaw bëriwul mais contact na fi am na contact yoo xam ne làmb ji am na contact bi desul non des fan barke alxuraanu karim alxuraan la la wax li mu contact si combat bi musu ko contact billaahi wallaahi ñaabu ndaw jaralu ma fenn mhm. man ñaabu ndaw may ma dépasse mayu ma dara sama rakk la nag sama doomu ndey la mhm. bu doon contagul man dama naan contagul mais dafa mhm. contact moo tax ngeen naan dafa jeex non man dama gis mu wàññi. voilà wàññiwul poids gis nga ay coono boo ko dajee da jeex da ngay jeex tàkk moo ba kii booy ñaar lim daj si combat bi si contact. Mhm. ak si wàllu entraînement musu ko daj ci combat. Mhm. wallaahi al azim. Mhm. imagine na yow booy ñaar man ma man moo may njëkk tëdd. te moo may njëkk a teel a yeewu di jóg. Eh, ay 3 heures du matin temps de récupération. am na lépp. làmb ji dañ ko waroon a ñàkk ñàkk ko. wallaahi azim kon jàppoon ne lan nga def jàpp ban erreur nga def ne moom la ñaar def ba ñaar biir bëri dafa jum si biir bëri ñu daan kese loolu kese mais amul leneen mystique wu lan lay mystique bi xam lan la gis nga euh, entraînement bu nekkee si yow mhm. ak jom ak ngor bu la jàppee si mystique sax du feeñ ah. pour man bu dee góor yàlla nga dëgg mhm. nekk bañkat gis nga ñaamu law mhm. dañ koy ñaanal jàmm ñun suñu fierté la géej dañoo war a génn man population Guédiawaye nag merewuma leen quoi. Mhm. ñoom damaa kontaan si ñoom. mais moom tuuti na stade bi xam lan moo tax. Mhm. mais est foofu laa jëm. Mhm. mbëri nga fi gis yëpp ñuy bëree. di feesal stade bi képp ku ci bëri autorité moo la jëndal billet nga jox ko say supporter may ko ñaar bu ndaw xoolal xale bu a jëndal ñaari bolgu billet dee wallaahi ak yàlla ngeen def stade bi mu ak yàlla bu ma fekkee sama njariñu doom wala sama waajur man yàlla bu mu fekkee sama njariñ amul benn autorité bu nekk Guédiawaye bu ko jox ñaar dërëm ay Lat Joob ak ñooñu amul wallaahi taalaahi ñoom ñu may dégg xam nga ma lan laay bañ bañ si doomu aadama di waloo ne bu ma génnee ni ñuy déglu léegi naan kii moo mën a fen maa ngi jégalu si kàdd googu ndax du respect ñaamu doo benn autorité bu ko jàppale moom gor la jàmbaara du jooy ñaamu doo moo yëkkati deux millions am teg jox ko foofu noonu pour jël vo vingt bolog billet di ko jaay supporter yi dem billet ñaata la doon sax du 3000 bolog bu ne teg na si 100000 am si xale bu ndaw loolu war na ko war a def open press du am di am problème semi moom mënul jooy ko ñun sax lii ñuy def nii neexuñu di wax mhm. boo gisee damay waaye nga xam ne man xool laay waxee mhm. dama am lu ma metti si li ñun duñu wax ñun duñu wax ñun ay bàyyi fa lu am neex na neex na neex nañu quoi yàlla sunu borom moo ñu doon may kenn xañu ñun mm-hmm. mais man autorité Guédiawaye laa mere mm-hmm. population Guédiawaye kontaan naa si ñoom kontaan naa si mbër yi mm-hmm. ñoom ñëpp jàpp nañ si koo gis ak koo gisul Jackson gis nañ ko ñëw na Fils de Balla ñëw na kontaan nañ si bu baa Jackson ñëw na open press bi xam naa gars yi bëri gisuñu ko kooku jàmbaar référent la waa Guédiawaye Jackson nañ ko gën a jàppale yaa ngi junj de nañ ko jàppale comme ni ñuy jàppale mbër yi dafa nekk nit ku baax nit su nekkee nit ñun dañuy apprécier ñun ay Baye Fall lañ soxoruñ suñu mbër bu ñaanal tamit soxorul li mu am nii ñaa Baye moo tax am ni démb pourtant Zarko moo waroon a woo Niang bu Ndaw mais Niang bu Ndaw ba mu daanoo da kaa woo si guddi gi loolu si lan la bokk loolu si grandeur la bokk Zarko wax na ko ñun Niang bu Ndaw moom am xelu boppam bu baax mais am na ñeneen ñu nekk si ginnaaw ñoo am ne am nañ xel bu màcc mhm. wante Guédiawaye autorité yi dañoo seetaan booy bi mhm. open presse bu Ndaw xool ni mu feesee mu am problème zemi Moussa Lam maire Ahmed Aydara ñëw foofu. waaw loolu eh, nga xam ne ñëw na nag jox leen problème mu sori jàppale leen ma laaj naa la ko yéen wala ngeen laaj la yëkkatee man autorité man lan laa jàppoon si moom. comme ku mel ne Bamba Fall. dama kon damay la sama Mohamed Aydara jàppale wu leen dara wallaahi jàppale wuñu dëgg la yàlla bëgg ba ngoon bu ma ko fekkee wul sa bu ma ñëwee mu wax ma ko joxul ci dara déggoo ma laa la sa waaye man du ma waxantu dëgg la yàlla bëgg waxoo lil xàq wala kaana mu ran dañuy wax dëgg donte naqari lay doon bu ñu jàppale woon dañ naan la jàppale jàppale na ko mu jàppale ko ñu naan la jàppale ko ba njariñ la amal fii mbër ñi fiy jàppale mbër yëpp amul kenn ku si ñi fiy waxuma la autorité de fii ñi fiy jàppale mbër géejaway yëpp amul ku si jàppale ñaa bu ndaw si wàllu moyen laa la yi nii si wàllu moyen amul ku si jàppale ñaa ñaa bu ndaw du wax loolu mais man mii di ko wax sax bëgguma ko woon a wax mais tamit dañuy wax pour ngir ñi xamul ndax xale yi fi lay ñëw ñu leen wax billet yi ñu naan billet yi deux mille ko jëndal bi Ahmed Aïdara gis nañ ko Ahmed Aïdara gis nañ ko fa mais wallaahi azim ak yàlla bu ma fekk sama njariñu doom joxewul dërëm rakam na dañ koy sant rak Ahmed Aïdara mu laay kooku jàpp na si dooleem dem na si xaalisam dem na si waaw maanaam si saayir si baatin jàpp na si te yàgg na see jàpp ñu ngay koy sant di ko gërëm di sant ñoo xam na nag dañoo jàppale ñaa bu ndaw te dëkkuñu géejawaay te mënoon na leen a fekk dama ne képp ku nekk dañ ne bay ci sa wewu tànk jàppale jàppale ki nga dëkkal Lac de Guiers 2 ñëw na Lac de ñëw na ndax baata ne wu fi mais ñëw na ndax ñëw na maanaam mooy bàyyil na ko fi nu mu war a entraîner boole koog nit fekk ko fi kenn ku nekk Lac de Guiers benn combat ñaar rek la mos a ñëw si ay combat mbaam quoi mm-hmm. xam nga li ma expliqué moo moo armée bu ngéwal waaw mm-hmm. xam nga li ma expliqué loolu noonu moom la mos a ñëwee làmbam quoi mm. mais li mu doon ko defal yëpp doon na ko ko yàgg defal si ay làmbam di ko si jàpp jàpp na si saayir jàpp si baateen mburu mm-hmm. géejoo yëpp na si mm-hmm. ne ñaa bu ndaw ah, muy xale di drainer ful boo xamante ne nii yombul si moroomam bu koy def dem stade bi ni mu ko def laa koy gis gisoo xale bu fiy def loolu te xale yi ko fiy def yëpp dañ leen di jëndal billet amul ñaa ndaw jëndalut kenn billet billet maanaam 1000 francs rek la si tegal booy loolu yombul kii xale la wéeruwul fenn bëgg li muy def daj ay coono si làmb gis nga nit man xam lan laa bañ Sénégal te moo moo nekk seen jikko dafa bëri si ñoom ñu fekk nit un yóbbu ko deux dañuy bàyyi ba mu nekk deux ñuy buuxanteeg ñi fa nekkoon loolu baaxul nañ ko baax nit da ngay dimbali fu mu soxlaa ndimbal ñaama ndaw combat bi dama see communiqué live si ba sonn ne leen nañ ko jàppale ndaw buy góorgóor dañ koy jàppale mu am courage mais gis nga na loo xam ne ñaama dafa nekk jàmbaar sax ak nekk góor yàlla dëgg mais am na mbër yu mu doon doon combat bis bu toy nii ah ak bis bi dépassé na ko. non non bis bi mosu ko bis bi daa rëy ci moom bis bi rëyul si moom loolu xoolal ñaamu ndaw waaye day bëre ku ëpp dayo Zarko si laam man maa la ko fi bindal barki alxuraan gam dina bëre ku ëpp dayo Zarko si laam ndax maanaam xam la moo tax gëm-gëmam ñaamu ndaw moo ñu ëpp gëm-gëm ñun ñëpp ñi ànd ak moom moo ñu ëpp gëm-gëm te vision bi ak a sori. Mhm. vision bu sori moo tax mu muy def làmb def open press yóbbu ko stade gars yi ne ko doo ko feesal ban moromam nga gis mu def fi loolu si ma la géej way de ailleurs man moroomam nga gis muy wër ay open press stade amul open press boo xam kenn du la jàppale yaay génne say moyen ab ñaama na open press bi rek li mu si génn rek mënoon na def ay saraxam yu bëri plus de huit cent mille def na ko si sono yooyu day caaxaan yi ñëw foofu mm-hmm. barrière yooyu day ay caaxaan kan moo ko fay def xaalis mm-hmm. gis nga gaay gis nga gaay nañ gis nañ jàppale booy bi géej way man du ma tudd turu kenn mais géej ñooñu may waxal ñi may wax xam nañ seen seen seen bopp nañ ko jàppale mais Lat Diop dama lay ñaan Lat Diop jàppalewul ñaar mu ndaw Malick Gakou jàppalewul ñaamu ndaw Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara jàppale ko Aziz Ndiaye borom huile sa door ñun dañuy consommer sa door yow ngay doomu Guédiawaye jàppalewu jàppalewu ko mais Massata ñëw na waaw kooku ñëw na mais kooku ñëw paaram la bokkuñu moom dafa war a jaay Ndiaye gisuñu ko mala dama ne la xam nga laay sant mhm. damay sant grand Badou Ndione Pikine bu ndaayaan bu ndaayaan grand Badou grand Badou Ndione bu ndaayaan tamuy li bu booy ñaa dama koy sant bu baax ah. sant waa Pikine bu baax dañ see jàpp mhm. xam nga li ma di sant Fallou Karim loolu bu amee yëpp Fallou Karim moo ko war a nekk sama mbokku taalibe sëñ Abdou Karim mhm. di sant waa Ndindi bu baax ndax gis nga grand Bada Ndione mhm. dafa def loo xam ne yombul nit def ko pourtant Modou Gueye koy seet da am audience de mu yóbbu ñu si Modou Gueye amuñu audience mhm. Modou Gueye jàpp si defaral ay ñaan ay baas may ko xaalis mu yóbbu ñu waat si grand papis bu ig si bet kooku tamit jàpp si def si ma pourtant ñooñu dëkkuñu géejooy Pikine lañ dëkk mënoon nañ ne booy bi duñ ko jàppale mais gis booy def lu baax amul xàjjeeg seen Lat Diop dafa war a jàppale Niang bu Ndaw saa mu dëkk Géejawaay Niang bu Ndaw Lat Diop ministre des sports dafa war a jàppale bépp kuy yëngu ci sport wax dina la booy bi dëkk Géejawaay mais waaw man affaire bi man lan la lan mooy problème bi quoi moo ma jaaxal Niang bu Ndaw nekk ndaw di góorgóorlu ñun ñu war koo motiver jàppale ko mais seetaan yi dafa bëri ci autorité yi combat bi wallaahi Niang bu Ndaw li mu ci daj ci xaalis li mu ci perte ci xaalis mosu ko perte ci combat def ay maanaam avance am Niang la ci jënd kese lekku si dërëm amul lu mu si lekk paas si dem Maroc di fa loué xoolal loolu si xale bu ndaw buy góorgóorlu ah gars yi gars yi gars yi. kon li muy demee mooy boppam lay demee Maroc. waaw bu demee mooy boppam kan lay demee kan moo ko daggal bii nag daggal ko kan mooy génn fii daggal ko bii kan moo mën a génn maa ko daggal bii mais dañuy sant ñoo xam ne nii nag suñuy nit lañ ñun. di sant ay mut kase yi nii ak waa Daaru Salaam di sant Abib mii di magam. ak dofu ñaay ndaw yëpp ndax ñooy yooyu ay ñaadu xalaat dara ne ñoo xam ku lay jox temps temps moo gën a seer moyen dañuy bàyyi seen liggéey di sant Baye Sall Baye Sall euh, Baye Sall aseg naa jaaykatu feer Lamine Baye Sport dañ koy sant dund dañ koy sant dañ koy sonn dak ci ay coona Lamine dañ koy sant bu baax ak benn booy Fallou gunaa dëkk booy boobu bâche yoo gis fii xaaj bi yëpp moo ko defar Fallou booy boobu bu naa bu ñaa bu ndaw booy boobu li mu def ci com waaw waaw Fallou Fallou li def si kombaa bi dafa bëri ñu ngay ñaanal yàlla bu baax te gën koo taxaw gars yi si jàpp ay ay xaritu xaritu ñaa ñaa ba moom ay xarit yu yu yu baax la moom day gën a metti mais am na ay xarit yu baax nag ñu ko bëgg te yàlla tax di sant euh, bu baax a baax a baax baax Cheikh Diop Amérique foofu dafa def loo xam ne ni yombul am na nit mën nga di ko jàppale rek di ko jox moyen rek bàyyi ko mu dem jëm si mais da jàppale di lay jàppale si carrière bu ubbil ko compte international boo xam ne Amérique la ko ubbee pour bëgg képp ku nga xamante ne nii da ngaa bëgg a jàppale Niang Bou Ndaw te amoo doole demal nga abonné si compte boobu ndax compte boobu bis bu amee doole lu ñu fa fay Niang Ndaw si Niang Ndaw la ñëw collecte xaalis bu bëri yëkkati jox ko woo ay nitam yi nekk États-Unis yëpp jàppale ko xam loolu yombul Niang Ndaw xale bu ndaw la li am si làmb nii ay paawa si làmb amuñu ko Niang Ndaw instant mooy choisir de xam la dama da adversaire u Niang bu Ndaw tey ci jamono ji ginnaaw Zarko daan na ko kan la Niang bu Ndaw instant mooy choisir ku mu bëgg a bëri ne kii laay bëgg a bëri promoteur tëggal ko ma wax la ko tey mook moom si moom lay des xam nga la moom ama neex de Niang Ndaw du nekkul nekkul marchandise bu lamb xam nga am na mbëri ñooy daw si promoteur yi naan tëggal ma Niang Ndaw du daw si benn promoteur promoteur mooy daw ñëw waaye kuñ ci yàlla booleel estafam nangu mu waxtaan ak ñoom carrière lay def newul pour benn mbër newul pour ñaari mbër dafa jóg pour def carrière te carrière bi lu mu ko laaj mu ngi koy def maanaam ñaa dañ ko war a gën a jàpp xam naa dañu war a jàppale maanaam li làmb bañ doo ko fa fekk li ne la moo tax géej yi mënuñoo génn autorité yi taxawu bu toll nii xoolal Zarko ñi ko jàppale si nga ah, jàppale bu baax mais ñaamu do combat bii nii ah, da see dem ngor dem si dignité dem si personnalité ay nitam dem si ngor dem si dignité dem si personnalité. jërëjëf Cheikh looy tàggoo. waaw man li may tàggoo mooy sant population Guédiawaye ak waa Gounass bii rek ak maire koñ beeg paa yeeg ñëpp di leen jéggalu bu baax si coono yi. non loolu moom loolu moom non loolu moom loolu moom jërë ñu si wax loolu xam ne ma la ñu si wax ñaamu ndaw li ko yàlla def mu nuroog booy ñaa du man du yow du keneen te maanaam relation ma booy ñaa nekkul làmb de avant booy ñaa di ñaa bu ndaw di nekk mbër la am ak moom relation gis nga doomu aadama nit kenn du ko saakal ku muy àndal boo may jàppale nag di seetlu doo ma jàppale kuy jàppale da ngay jàppale te yàlla man lu ma ànd ak booy ñaa booy ñaa dama ne ko kii kii mooy kii mooy nekk sa xarit moom tamit du ma wutal ko nekk sama xarit gars yi nañ ñëw jàppale booy bi waaw noonu la demee man kontaan naa si gunaas daal gunaas amuñu seen fay géejëway supporters yi kontaan nañ gis nañ ñu wallaahi dañoo seetaan booy bi te bu dee dëgg la yàlla bëgg dañ koo seetaan mhm. amul ko si jëndal bologu billet ngaa ko beleen na ñu ngi koy sant mhm. du autorité de mhm. artiste kese la mais jàppale na ñaa bu ndaw ñoom Xaadim Fall ñoom Njawar ñoom Père Góor yombul ñoom Assane Fall Global Taxi képp nga xam ne jàppale nga ñaa ñaa kontaan na si yow ñun ñii tamit di ànd ak ñaa kontaan nañ si yow mais dañu gaay nañ gën a taxaw booy bi xam ne xale la waaw noonu la demee kooku ngeen gis moom moo di seex di lépp ñaa bu ndaw dégg ngeen li mu jot a wax nag leeral ko ci ak seen préparation ak lépp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf